bokku na ci tax nga mucc ci lepp luy ayu aduna ak alakhirah te amit lepp luy yiw ci aduna ak alakhirah bari sakku jéggal bari la jéggulu sa borom mo xam na ngay wax astaghfirullah ba rabbi ghfirli ba rabbi tub alayya moy sunu borom ba ngi lay jeglu yalla yalla nga ak yi nonu saxoo di ko wax bu dégg cëg saa yu ne day tax yalla jekal la ba noppi musal la ci lépp luy ayu aduna ak alakhirah may la it lépp luy yiwu aduna ak alakhirah adis banena ku takko sakku jegalu borom bi yalla defal ko buntu bu jaare bu génn ci lepp luy xat-xat ak lepp luy yàqare lépp lu ko joxewoon woon yàlla yombalal ko ko bari la bari wërsëgam ba nga xamee ni sax dana àgg foo xam ne foogu ko woon mu ne nag bari ni sàkku njëgal moom waxan naa ci gannaaw ne soo bëggee yàlla musal la ci ñàkk ñàkki xol ak njàqare may la xol bu féex ak mu yaatu del bari la jéggulu sa boroom loolu rek doy na sëkk ci ngëneeli bari la sakku njëggal ci yalla te lolu al ashhar yi wax nako ci kitaabu nuray yi hadis bo wit ñew na ci al hisnul hasin ne yonenti bi day dane won wat na ci yalla nga xamne ne moo moom bakkan su ngeen ton def ay bakkaar it yàlla da fi jele andi ñeneen ñoo xamne dañuy def ay bakkar te di ko jégalu mu leen di jégal mu ne waat naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan bii moo ko moom bu ngeen doon def ay ñaawteef yàlla doon leen fi jëlee andi nit ñoo xam ne dañuy defi ñaawteef te di ko jégalu mu leen di jégal dellu ne waat naa ci yàlla mi nga xam ne. boobul sama bakkan day su ngeen bari woon ñaawteef ba bu fees diggante asamaan ak suufit du ca dara bu ngeen jéggaloo yàlla rek mu jéggal leen addis bi dane ku bëgg bu ëllëgee buñ la wanee sa kayitu jëf nga bëgg fexeel ba bari looy jéglu yàlla nga xam ne bu ëllëgee boo xoolee sa kayitu jëf gis ko ca addis yi yëpp day wane ne loo bari bari ay bakkaari ki ñaawteef bu mu la taxa naagu na wuti rek buntu yàlla di toroxlu ak a yàlla jégal la waaye naagu yërmaane moom moo fi yées addis ba nee na ab jullit bu defee bakkaar malaaka mi bind bakkaar ya yàlla da koy wax ne ko muñal ko ba xam dana tuub te jéggulu muyal ko lu toll ne ñetti waxtu su jullit ba jégguloo tuub ci biir ñetti waxtu yooyu kenn du bind bàkkaar ba su ñetti waxtu yi matee te tuubut jégguluwut nag ñu door a bind bàkkaar ba gannaaw bu ñu ko bindee ba noppi moom bàkkaar ba ndaxuk càgganteem du tee bu jégguloo yàlla yàlla jégal ko ko te bu ko xasee jégal jeex na bu bis pencee du ko laajaat dara lu jëm ca loola hadis ba nee na iblis daa wax ni yàlla borom ne ko giñ naa sa tedd ak sa màgg ne danaa def lu ma mën du ma dàcc du ma yokkat fu ma toll danaa def lu ma ci doomi aadama li fa nga xam ne daal doomi aadama ji faatuwul rek du ma dàcc du ma tàyyi ci jéem koo bewloo sunu boroom ne ko man itam day giñ naa ci sama tedd ak sama màgg ne lu ñu bari bari ay bakkaar ak lu ñu bew bew li fekk ñu ngi may jéggalu rek ma leen di jéggal addis ba nee na ñaari malaaka yi nga xam ne moom la yàlla booleeg doomi aadama bu ne ñuy bind jëfam ju baax ak jëfi safaanam ku ci kenn yëkkatee kayitu jëfu ab jullit wan ko yàlla yàlla gis ca njëlbeenu mbind ma ak jégalu gisitam ca mujjub kayit ak jégalu ba yàlla xoolee kayitu jëfam la mu njëkk a gis mooy sàkku njéggal ba xoolee mujj ga itam gis ca ak sàkku njéggal mu mujj ca kooku nee na faaw yàlla jéggal ko lépp lu mu defoon ñu bind ko ci diggante jéggalu googee ca kaw kayit wa ak jéggalu ga ca suuf faaw yàlla jéggal ko lépp lu mu bindoon ca diggante ba ci xeeti bakkaar kon day nee na ku yàlla may nga bari looy jéggalu ba ku xool sa kayitu jëf fekk ci jéglu yu bare bare ku mel noonu day moom ku yobu ñee ko ndax am na texe ba noppi addis ba nee na ab jullit bu sàkkulee mbooleem jullit ñi jéggal maasale góor ñi jigéen ñi mel ni mu ne allahumma axfir lii wali walidayya walil muminina wal muminat wal muslimin wal muslimat al ahyaai minhu al amwaat saa yu jullit bi sàkkulee njëkkal mbooleem jullit góor yi am jigéen ñi daal yàlla day seet li nga xam ne moom la limub ñi yàlla tey góor bare ak na limub ñi yàlla tey jigéen bare mu bindal ko ay yiw yu toll noona loolu nag kon dana bari lool lool addis bi dane daa am benn waay bu ñëwoon ci yonent bi ne ko waaw yow ki yàlla yónni kenn ci noonu bu defee bàkkaar nag mu ne ko yàlla bind ko mu ne ko waaw su ko jéggaloo tuub ko nag ne ko yàlla dal koy jéggal nangu ak tuubam mu ne ko waaw bu dellootee ci bàkkaar boobee mbaa ci beneen nag mu ne ko yàlla bind ko mu ne ko waaw su ko jéggaloo tuub ko nag mu ne ko ba tey yàlla jéggal ko te nangu tuubam ndax yàlla day wax ne li fekk yoqatu leen di fek jéggulu sàppiwu len mayit jéggale duma sappi di fek yéen a ngi bapudane, rek ma len di jegal alis bobu dane sa borom day day wax ne yow doomi adama li fek yang may ñaan ak di am ci man yaakar ma lay di la may doole ja ak nak lu sa bakkar man di reey reey tayit bu fekkone say bakar da bare bari ba fess diggante asamaan ak suufit tuté rek soo ma jégguloo ma jéggal la kon boo dégloo waxin yooyu yépp jubluñ ci sax wayefal bakar ba bëgg nga daal di waaxu song def lu la neex té la bëgg xamal ne la bul naagu mukk yërmande doomi aadama ci bopam yalla ko bindé doy matadi lu say bakar bari bari ak loo bari bari tim yéen jublu buntub yàlla tey jégglu di tuub ndax li yàlla jéggal la boole la ci ñamu gërëm